FT jaay FT sama gars yi man la Mister Shake um, depuis Brooklyn New York tey dama ñëw uh, bëgg def leen benn vidéo ci Farba ak Birima njaay jàkkaarloo Farba Ngom añam Agnam dañ ko tudd ci ay suuf yoo xam ne dañ ko jiiñ ne dafa bëgg jël terrain jàmbur fële ci Wakaam ci wakam ba legui dirima jakarlo ñu jiñ ko momit ne dafa bëgg jël ay suufu lebu suufu jambur ñu bëgg ko jël man dal nak wax deug man tan yi man dama waaru senegal ndax vraiment ciow suuf rek lañuy dégg té wa APR rek lañ ciy dégg wa APR rek lañ ciy dégg dafa am ben euh, way ju tuddu bu doon ah bu doon ci euh, internet mom muy wax ne dafa am ben terrain bo xamne ne terrain bi sax taxu ka cher nonu 50 millions rek lay jatt li tax ma wax 50 millions rek ndax Farba Ngom mom ci bopam dañ ne amna keur kër Almadi Almadi am na këru un milliard foofu ba pare Farba Ngom dafa am ben réputation même Babacar ndoy mu ngi koy wax nee ko yow yaangi est yaangi ouest Dakar fune ñu koy tuddu souf di wax ne moom dafa am suuf léegi nag lu ñu bëgg xam mooy Farba Ngom Farba Ngom est-ce que li ñu koy waxal dëgg la ne dafa bëri suuf senegal bu dee dafa bëri suuf senegal lan moo tax mu am suuf ndax li muy ànd ak Macky Sall nekk géwalu Macky Sall waaw ndax moom añam suwal añam bi nga xam ne moom moo fay est-ce que du fa maire sax moom moo gañeel Macky Sall foofu moom nee na cent pour cent wala quatre vingt pour cent élection yi passé ñëpp Macky Sall lañ votal ñëpp xam nañ ne moom mooy géwélu Macky Sall mook Macky dañu jege lool lool lool lool Farba Ngom moom la ñu war a tuddee intouchable dégg naa sax mës na am benn problème ak xaw ma benn policier xaw ma am na ku ko arrêté mais bu mu génnee lu nee la yàq policier bi genre wax yooyu daal da ngay dégg ak jaay doole bi bi ñu koy tuddal mais Cissolo ci boppam moom daf ko jiiñ ne ba Ngom dafa am terrain yu bëri yoo xam ne ni mu ko amee du yoon ni mu ko amee du yoon même ba pare mu am këru un milliard Farba moom ci boppam man dégg naa mu génn télé mu ne Cissolo dafa iñaan dafa iñaan kon far ba moom weddiwul ne am na alal waaye moom nee na alal bi mu am yëpp moom courtier la courtier maanaam day ci ci euh, mbiru suuf ci lay yëngu

ñun dañu nekk ci dëkk boo xam ne ñun ñii baadoole yi baadoole yi amuñu suuf man mii benn terrain laa am terrain cent soixante-dix mètres carrés waaye gis nga nit dafa jóge fële benn ndaw si jigéen ne moom moom terrain bi te moomu ko yóbbu naa ko tribunal moom moom moo yóbbu tribunal sax ndax man dam ko bëggoon yóbbu tribunal dem gendarmerie waa gendarmerie ne non non non doo fi porter plainte doo fi porter plainte lañ ma wax billahi senegal ken xamul lu fa xew ba pare ñom ñu bàyyi ndaw ci njëkk ma dem porte plainte ba pare may dem tribunal atu yalla atu yalla mais sa yu ma demee ndaw ci du ñew yo nan ngay porte plainte nit sax ci terrain ba pare ñewulo parce que da nga dem ba ci bir nga xam yow da nga ragal ñewulo atu yalla sa yu ma demee ci juge bi ñu xol ne ndaw ci nekk fi ah ñu ne ah dañ ko renvoyer juge bi mané ko man man dama wara tukki juge bi ne ma ah man de mënu ma ci dara wax deug ndax loi Sénégal non non la non la teddo Sénégal li fa am dafa ëpp mais Farba Ngom yemul ci xa terrain yi mu am yi ñu koy tuddal milliards yi mu dem jël terrain lëbu benn famille bu ñuy wax ndóoy terrain boo xam ne taxu ko sax taxu ko sax ngan noonu mu ñëw ne aaj mu aaj moo ko ne moom moo ko moom lëbu yi nag nee nañ ko Babacar Ndóoy di waxal papam ak famille am nee nañ ko bañuñu ci dara ci saayir ak ci baatin bañuñu ci dara ndax nee na ñoom nee nañu Euh, Farba Ngom li ñuy def mooy bootu day bootu xanaa ci ginnaaw Macky Sall lay bootu day jaay doole ñun lu ñuy wax rek mooy gis nga arrogance baaxul maanaam dem ba beew man APR laa militeel mais man maa ngi bëgg sama xel mi ngi bëgg tey ci APR man militeel naa APR waaye comme ni mu leen ko waxee woon man du ma far du ma du question ne damaa militeel APR rek que su ma gisee lu ñaaw li waa APR di def loolu tax day tax man may rëccu sax est-ce que waroon naa votel APR est-ce que waroon naa militel APR 2017 2019 présidentielle ak législative yi def ci sama 3 millions yoo xam ne dañ bene woon kaay jàppale ñu après dinañ jàppale sa gox sa quartier mais gisatuma sama 3 millions noonu laa ko perte mën naa ko wax yaa ngi may dégg waaye comme ni leen ko waxee 2012 man Ablaye Wade laa faraloon Ablaye Wade laa faraloon pour ñi ma li tax may wax loolu chaque jour moo tax ñu bëri dañ naan ma yaa ko def lu tax nga faral APR yaa ko def ñaw gis nga mais yéen 2012 yéen a fi teg Macky Sall Macky Sall nag ñu teg ko fi ay nitam ñu leen tudd ñu leen di tudd ci ay mbir yu doy waar littoral bi yàqu ba yaxeet yàqu Mame Boye Diaw directeur des dome moom mu génn ne suuf soosu moom yoonam nekku ci nee na suufu littoral ñi fa am titre foncier moom nee na yoonam nekku ci ndax mënu ko mënu ko dindi kon daal loolu mooy ne littoral bi yàqu nañ fa tabax tabax yu ñaaw ñun suñu yoon nekk ci yow nga nekk directeur de domaines mais pour dellu si waat ci euh, euh, Farba Ngom Farba Ngom si Cissé Lo dafa la joxoñ baaraamu tuuma te du Farba rek ndax dafa mel ne suufu Sénégal gars dañ koy jiiroo di ko pàccoo di ko séddoo baadoole yi nekk amuñu dara dara amuñu nekk ci nguur gi rek di dagg di séddale di dag di séddale tuddu nañ sax ay magistrat ne dañ dañu am ay souf tuddu nañ ci ay journaliste kon deug la wala ñi ay nitu télé kon deug la ndax Birima ndjay nitu télé la nitu télé la té ñu nga gis momit wax nga waxam ay nit genn né dafa bëgg sat seen souf ndax mom néna souf ci dafa am ben ku ko jaay té ko ko jaay ko ko jaay momul souf ci ah dafa am ben ndaw bu né wa sikap ñoko jaay souf

Euh, doole ji mu am ak li mu jege Macky Sall ngir foqati suuf soo xam ne fukk fukki million rek la. yéen ñi xam ne leen duróol li ñuy wax la boulimie foncière la gourmandise la cupidité foncière maanaam ay nit yoo xam ne du ñu suur ak nit yoo xam ne dañoo foqale gis nga li ñuy wax frénésie feeding frenzy ni ko américain di wax feeding frenzy dañu mel ne ay piranhas xam nga ay piranhas mooy jën yooyu nga xam ne bu ñuy bu ñuy bu ñuy song ñoom ñëppay songandoo di jiiroo di lekk. waa APR loolu la ñuy ndurul ndax li ñu leen di tudd dafa bëri Birima Ndiaye kan moo ko gën a nekk APR ah kan moo ko gën a nekk APR waa SICAP liñ leen di jiiñ mooy dafa am ay nit yoo xam dañu fay liggéeyee dañuy liggéeyee SICAP ndeysaan ñoom tamit di jaay ay suuf mbubboo suufa euh, SICAP di jaay ay suuf mais en tout cas man daal dama gis ñaari ñaari euh, euh, vidéo yooyu ñuy xeex Birima Ndiaye di xeex ak euh, euh, Farba Ngom Macky Sall nag wax dëgg ñun dañoo décorager su moom président boo xam ne <laughs> du change gouvernement président boo xam ne du dàq ministre ministre bu ñu wax ne dafay rek dafay euh, rey ay ay ay gazelle ah mooy genre xar xaw ma xar laa xaw ma lu ñu war a tuddee ay antilope oryx ah yoo xam ne dañ leen ñoo protége li ñuy wax espèce protégée maanaam ay ay mala yoo xam ne bëreetuñu ci àdduna bi dañ leen war a aar dañ leen war a sàmm yow nga jël ko naan da nga koy yóbbu si sa si sa si euh, sa bërëb bopp pour yar leen foofu ba ñaar xaw ma daal di ci dee am na sax ñu ne ëpp na ñaar ñi naan daf ko dibeeg ah daf ko dibeeg daf ko def lii daf ko def laa Macky Sall moom du dàq ministre parce que pour moom bu dàqee ministre rek loolu day wane ne moom gouvernement am dafa am problème mais gis nga président du mel noonu président bu nit defee dara da nga koy dàq waaye ma Macky xam nga kan lay dàq képp ku tudd trois troisième mandat mu dàq la képp ku wax ministre bi aayuloo comme Cissé Lo Sori Kaba la tuddoon xaw ma du moom lañu dàqoon ndax moom doon wax waxu troisième mandat di wax Macky Sall mënul am troisième mandat ñu dàq Cissé Lo di joxoñ baaraamu tuuma dañoo sàcc terre dañoo building administratif bi dafa bëri mbuxum terre bi dafa bëri mbuxum jiw ji dafa bëri mbuxum ceeb bi dafa bëri mbuxum mais xool leen ceeb bi nañu wax ci ceeb bi daaru marnaan Touba nit ñi di xuloo di xeex di di di xeex ndax séddoo ceeb di juróo ceeb ay waay Sénégal métti na Sénégal métti na Macky Sall ñun luñ koy laaj ñun APR lañu ñun lañ ko voté dañu voté pour Macky Sall président dafay dafay dafay euh, day wanewu ah mais président boo xam ne yow quarantaine nga demoon quatorze jours kenn gisu la quarantaine quarantaine kenn gisu la quarantaine bi jeex nga dem jaale ji Tiwaawan avant ngay jaale ji Tiwaawan demoon nga jaale ji Côte d'Ivoire mais ministre yi nga war a changé gouvernement bi daf c'est normal c'est dafa jot Macky Sall changé gouvernement bi indi ay nit yu bees parce que li ñu di li ñuy dégg ci problème dafa bëri Mansour Faye ceeb bi nu mu ko distribué baaxul si Ousmane Sonko yeey na leen foofu wax na dëgg lu tax ngeen di joxe ceeb lu tax jëlu leen xaalis bu bëri ngeen joxe man Amérique bi ma nekk noonu la noonu la def dañu jël xaalis ay chèque la ñuy jox wala ñu di ñu fay chomage mais di jël ay ceeb ah li Pape ñaa wax lu dollu 47 milliards nga jël ko jox ko ay nit ngir nit yi ut seeni camion ak li ma xamul dem dem séddale mais 47 milliards yooyu xajoon na xajoon na ci waa senegal Sénégal lu fa xew dafa ëpp tilib mbalit ba moo tax gis nga jeux olympique jeux jeux de la jeunesse yi waroon am 2022 sax man dama ne woon <laughs> man def fois dafa mel ni damay damay yëg dafa mel damay gis parce que dama ne won man jeux olympique yooyu xawma ma jeux olympique la xawma ay jeux xawma lan la manam ay fo aduna bi yëpp waron ñew Sénégal tagat tagat yaram fofu waye dañ ko dàq ñaari at yi la waron si ñaari at la waron am mais dañ ko dàq ba 2026 ndax Sénégal Covid bi corona bi Sénégal corona bi. dafa tëj lépp dafa yàq koom-koom Sénégal dafa salte d'abord man dama xamul nan nga woowee waa adduna bi yëpp ñu ñëw Sénégal ak Sénégal lu mu saltee xool leen kanaal bi dem leen Seneweb di ngeen ko gis dem leen Seneweb di ngeen gis canalu canalu Almadi du Almadi dañ ne mooy quartier bi gën a am xaalis Sénégal mais xool leen seen boobu nu mu salte xool leen kanaalu Grand Yoff bi nu mu saltee xool leen canalu euh, euh, Fass bi xool leen nit ñi nit ñi nit lu leen neex sànni loolu sax xëy na du Macky Sall kese waaye ñoom ñoo war a yar sénégalais yi sénégalais yi sax man damay gis sax ay dëkk yu mel na ay Mali sax dafa mel ne moo bu ñu leen di wanee seen dëkk mooy gën a set sax waa Sénégal waaw waaw ay Rwanda moo gën moo ñoo ñu gën a set Burkina Faso ñoo ñu gën a set mbedd lu tax waa Sénégal mën a mën a salteel ba pare ñu naan dañuy organiser ay jeux ay jeux wax dëgg mag sal daal jot na jot na mu yeewu daq dàqe ku liggéeyul da ko war a dàq waaye boo dul dàqe nit ñi lu leen neex la ñuy def voilà man dal li ben video la rek buma bëggon def wax ci sisolo wax ci euh, euh, Birima ndjay mais surtout wax ci wa senegal nak ñom ñoo wara yew ak suñu opposition bi suñu opposition bi ñom Sonko ñom Sonko euh, ak ak yenn député ndax élection yo xamne dafa wara am yeen ngeen tok rek di xaar di xaar Macky Sall lu ko neex def lu ko neex def mais euh euh maire maire dañ leen wara changer dañ leen wara soppi waaw waye élection yo xamne kenn xamul kan lay am ñi naan 2021 mars 2021 lu leen ñu koy wax Macky Sall di leen nax am na lu muy demee sax Dakar ci luy wax du am maire Macky Sall moo xool ku ko neex rek mu jël ko teg ko fa ne yaay maireu Dakar ñii xeex Barthélemy Diaz may wax Moussa Diop naan da koy porter plainte Sénégal yi di seetaan rek te Barthélemy mu ngi jóg di xeexal nit ñi ci ci euh, tefes gi Pape euh, Alé Niang di xeex Euh, nit ñi ci université ak yooyu momit ministre de l'enseignement supérieur momit it ne da koy porter plainte sénégalais yi dañuy toog rek di seetaan pap Alé Niang bi def émission am di am ay 4000 vues 4000 personnes di ko seetaan en direct waaye bu ñu naan bu ñu tëjee Pape Alé pip, kenn du ne piip kenn du ne pip waa Sénégal da ngeen ñàkk fayda man APR la la <laughs> nekk waaye waaye nag gis nga jalgati bu amee dangeen ngeen war a génn ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen waxuma la ngeen ngeen ngeen yàqate de waaye xool leen Mali li fa am xool leen Mali li fa am gis nga population boo demee ba maar lekkatuloo naantuloo dëkk bi salte amul liggéey ba pare ñoom ñu jël xaalis di ko pàccoo seen biir da ngeen war a génn ngeen fipp waxuma la nag fipp fipp du question da ngay yàq mais da ngay génn nga def ay marche wax ñu nag ay marche ay ay ay ay aar lu ñu bokk ak yooyu parce que ñooñu ñëpp tamit booy xool seen liggéey dafa des Nous sommes Sénégal nous avons Macky Sall dañ ko fal mu commencé liggéey liggéey bu rafet Mais nag ba euh, deuxième mandat Il Macky Sall vraiment man ñun Il la le troisième mandat moo ëpp le ba talatul liggéey Macky daf ñoo daf ñoo ba ana Terre, ba train le train mais train man buma nexé ma tok fi gis ngeen ma ñenti weer a ni ma sha allah liggéeyu ñi ñuy fay ñeenti weer liggéeyu ñi ñuy fay ah bu fi yemoon sax neex te Yalla bu fi yem ya nga ya ngi may dégg duñu jox ay chèque bu ñu yeexoon ñu yam fii Amérique suñu nekk nekkatu Sénégal mais ñun ay patriote lañu té dañu tiit ndax Afrique day changer gis nga Mali li fa am mën na jék jékki tàkk te Mali Sénégal dafa jégé ci Burkina Faso nu mu takké Côte d'Ivoire mi ngi waji tak ndax Alassane Ouattara troisième mandat bu fu jógee kan mo koy remplacer yéen a ngi may dégg Afrique dara wóoru fa dara wóoru fa Sénégal dara wóoru fa motax nak ñepp yeen ngeen wara vigilant ngeen ubbi seen amul Sonko Lafaral faral amul APR Lafaral. faral nañu nek ay patriote yalla daf ñoo mos sutural Sénégal ndax suñu sëriñu yu waye nak yalla sutural. est-ce dafay dafay dafay continuer rek duñu sutural han ah dëkk bu tayalé lepp ay yaq voilà ñun li wax rek moy waaye li ñu wax rek mooy yàgg-yàgg ñi fi nekk di rëy làmmiñ nekk ay géwélu Macky Sall far ñu mel ne Farba Ngom ñu mel ne Yakham mbay ñu mel ne boo jaaw ak musaa Diop ñoom ñëw ci gën a fës di porter ay plainte rek ba Ngom dégg naa euh, Yakham mbay am na keneen ku mu porter plainte parce que nee na benn benn journaliste bu ñu porter plainte ndax dafa am benn sit site site internet kooku moo génnee audio Cissé Lo yi ñoom moom it ñu ne dañ koy porte jaay doole bi fi am yaa xam mbay Moussa jóob mam mam booy jaaw ñoom ñoo fi gën a rëy làmmiñ ak ba Ngom te xam leen ne Macky Sall daf fi jóge Macky daf fi jóge kon nag kuy kuy wax bu yóbboo nga xam looy wax kuy jël suuf jàmbur boo warul jël bu yóbboo nga xool li ngay def waaw ndax yàgg yàgg Macky Sall daf fi jóge te bu fi jógee yéen seen bopp seen kër yooyu ngeen am yëpp mën nañ ko nangu ndax lu dal li dal euh, euh, soxna si Bousso soxna si Bousso ba ñu tojoon këram almadi mën na dal Farba Ngom ñaanaluñ ko yàlla mën na dal Yakham Mbaye ñaanaluñ ko yàlla li dal Karim wat mën na dal yéen ñii ñëpp yéen ñëpp gën a fës waaw ñun li ñu di wax rek mooy ressaisissez-vous maanaam delloo jël la euh, xoolaat gëstu leen xam nga nga xam ne yéen déjà yàlla moo leen fal dëgg la mais yàlla bu la falee lim la li li sa jël ko te nga xam ne yaa moom waaye foqale bi sàcc bi jiiroo bi ngeen war a bàyyi ngeen gestu ngeen gestu waa Sénégal ngeen gestu waa Sénégal ñun loolu lañ leen di digal boo ko deful nag ah ëllëg si biir di ngeen ko rëccu ndax gis nga at yi dafa gaaw at yi dafa gaaw ana Karim Wade tey ana Khalifa Sall tey nekkuñu foon ci jékki-jékki nekk ci nguur ana Hissène Habré bu Sénégal lañ ko tëj ah ana Blaise Compaoré bu reyoon bu reyoon euh, Thomas Sankara dawul Côte d'Ivoire làqatu yéen nag da ngeen yaakaar ne seen bés du ñëw ku ci def na def lu baax gouvernement bi am na ci ñu ñoo xam ne ñu ngi liggéey te même bu fi Macky jógee ñu ngi bokk si gouvernement bi dara du leen dal xam lu tax dara du leen dal parce que ñoom dañoo yem si seen salaire dañoo yem seen liggéey génnuñu fi di xas nit ñi lu ne tëll rek yaa xam may génn di dàq ay croquette ak di dàq ak yeneen nit soleil jaay doole boobu yàgg bàyyi leen arrogance baaxul waaw gars yi sama vidéo bi dina il faut mu gudd dina ma naa ko def vingt minutes rek benn yoon naa ko def benn vingt minutes parce que vraiment euh, man daal li ma gis ci APR dafa maa commencé soof daf maa commencé tiital Macky sàll nag moom du déglu kenn lu ko neex lay def maanaam Faye Sall déggatuñ ko sa vrai que corona moo tax mais Macky Sall il faut que mu nekk président ñàngal bi dafa ëpp ñàngal bi dafa ëpp toog rek ah ku wax lu ëpp rek mu mu génn décret daq du noonu président du noonu président da ngay nekk sur le terrain da ngay génn da ngay wax xam nga da ngay da waxtaan ak nit ñi da ngay dàq ministre da ngay def remaniement ministériel waaye am benn clic rek am benn clic rek ni ñun ñun rek la keneen bokkul vraiment voilà gars yi euh, euh, vidéo bi loolu la woon video bi loolu la man daal dinaa continuer di def samay vidéo dina continuer di dénoncer pour war leen ñun ay patriotes lañu Sénégal moo ñu voilà gars yi kon ñu def noonu euh, ba suba maa ngi leen di gërëm di leen sant.